internaute DKR 221 ñu leen di ziar bu baax a baax euh, di leen jox l'information selon laquelle madame Diégui Diop mi nga xamante ni moom moo fi amoon ay jafe-jafe yoon ginnaaw bi mu démissionné woon ca direction de la promotion de l'économie sociale et solidaire ay jamono nag euh, ñu daal di koy nag convoqué ci yoon ginnaaw bi mu ne woon du amal ab passation de service ginnaaw si nag ñu gis ni na euh, ni que dem na wuy ji yoon après nag ci la dem def passation de service boobu boobule waaye nag boobaak léegi mu mel ni déggaatuñu ko. Euh, donte am na ay plateau télévisé yoo xamante ni def na ko waaye moom mi nga xamante ni moo di Diégui euh, jamono ji mu mel ni mi ngi si guddi gu nga xamante ni euh, bët setagul ndax dafa am benn scandale bu nga xamante ni daal di nañ koy nemmeeku foofee ca finance mu mel ni nag. Euh, qu'il est euh, dit le ministre de la microfinance de l'économie sociale et solidaire di yoo ci turu Alioune Diop daal nay xamle ni euh, ci benn déclaration bu nga xamante ni mu ngi ko doon def foofee ca RFM ni que jamono ji mbébétam bokk na si moo di woolu kii nga xamante ni moo di jéegi Diop ngir mu daal di wuy ji yoon. Euh, mu daal di koy nag porter plainte ngir euh, ay euh, poursuite judiciaire mën a nag tegu lii ci li nga xamante ni moo di ndoddam moom mi nga xamante ni moo nekkoon directrice su promotion de l'économie sociale et solidaire mu mel ni nag ci kàddu yooyu nga xamante ni ministre Alioune Dione bi daal dina koy xamle xamle na ni. ginnaaw bi ñu jëlee euh, fonction bi léegi am nañ ay audit interne maanaam ay càmbar yoo xamante ni jot nañu koo def euh, bi ñu defee nag càmbar yi gis nañ ni que li ñu gis mu jaarul yoon euh, ci wàllum koppar dafa bëri lool ay irréga irréga irrégularité yoo xamante ni ci wàllum finance yu takkoo takk yoo xamante ni nemmeeku nañ ko ci institution boobee nga xamante ni Eh, Diégui Diop mu ngi ko doon diriger eh, mu mel ni nag bu ñu sukkandikoo ba tey eh, ci kàddu yi nga xamante ni Alioune Dione bécc na ko foofee ca RFM am na ay investigation maanaam ay lëñbët yoo xamante ni inspection interne daal na koy amal foofee ci nag koppar yi nga xamante ni moom la ñu teg ci ndoddam ni daf ko nag daal di luubal mi ngi toll ci fanweeri million ci suñu ay koppar maanaam trente millions de francs CFA. mu mel ni nag moom mi lee di Alioune Dione daal di nay xam ne ni bi mu jëlee fonction ba noppi nag moom ci boppam moo daal di nag euh, joxe ndigal ngir ñu daal di def ay lën dañ bët ñeel gestion wu finance wu euh, euh, institution wala kuréel gi nga xamante ni foofee la Diégui Diop nekkoon résultat yi nga xamante ni nag moom la ñu gis nekk nag lu doy waar loo xamante ni jamono ji sénégalais bu ko dégg rek rek da ngay daal di nag euh, yéemu ba tax na ñu ngi xam ne ni ci lu tollook 30 euh, millions maanaam fanweeri million euh, ci suñu ay koppar ñu ngi ko koy joxeñ baaraamu tuuma ne rek daf koo daal di nag luubal moom mi lee di jéegi job waaye nag si kaddu Alioune John ba tey ci RFM daal di nay xam ne ni koppar gi nga xamante ni sax ñu ngi ñaaw njortu ni moom la jël ëpp na sax fanweeri million ndax toll na ci 60 millions. ci suñu ay koppar yoo xamante ni daanaka mun nañoo euh, nemmeeku ni ay détournement la yoo xamante ni ba léegi si amagul benn explication yu mën a firndeel ni fii lañ ko dugal waaye nag moom mi nga xamante ni moo di Jéegi Jóob mun nañoo jàpp ni 30 million yii moom la ñuy euh, ngàll ci ndoddam waaye sax bu ñu euh, gënee yaatal li nga xamante ni moo di enquête bi mun na koo ëpp ndax seen njort ci 60 millions de francs fa sax mën na faa toll bu ñu sukkandikoo ba tey Euh, ci kàdduk euh, Alioune euh, Dione mu mel ni jëwriñ bile daal dinay xamle ni que décision bu ni mel ngir nag yóbbu Diégui Diop ci yoon benn Euh, motivation politique wala considération politique euh, lalu ko waaye nag euh, jamono ji jub jubal jubbanti la ñu woote responsabilité ci gestion ñi bi nga xamante ne dafay ñeel wàllum fonds public moo tax nag ginnaaw ñoom dañu leen fal ci base boo xamante ni tey le président Bassirou Diomaye Faye dañ ko fal ci base boo xamante ni Euh, jub jubal euh, jubanti la ñu woote donc c'est très normal bu ñu toogee am ay lëñbët yoo xamante ne dinañ ko def ci post de responsabilité yoo xamante ni moom lañu ñu leen dénk te it day baax ñu def le bilan xool tey euh, information yi nga xamante ni moom la ñu war a jox sénégalais yi waaye it ñi nga xamante ni ñoom ñoo luubal ñu daal nag wuy ji ci yoon waaye nag ñun en tant que taskatu xabaar suñu xel dem na ci euh, kaddu yi nga xamante ni euh, niki bi euh, le premier ministre Ousmane Sonko bécc na ko ñeel reddition des comptes yi nga xamante ni ñu ngi ko doon wax ndax xamle na ni que ay poursuite dina daal di tàmbali ndax am na ay rapport yu bëri yu nga xamante ni jamono ji daal di nañ koy nag jox ñañ ko war a jox jamono ji lan moo ci des lenn rek lay doon mooy ju mooy justice daal di def liggéeyam ba tax na niki tey eh, kilee eh, di eh, Diégui Diop ministre bi nag daal dinay xam ne ni moom itamit daanaka mu ngi ci guddi gu nga xamante ni bët setagul ci fàttali jamono yi ñu wees rek moom mi lee di Diégui jóob amoon na ay jafe-jafe ak yoon ndaxte dafa ne woon rek dafa démissionné waaye bi mu démissionné ba noppi amul jotul woon a def li nga xamante ni moo di passation de service alors que ki nga xamante ni moo ko succédé jox jotoon na yenn inform waroon naa jot yenn information wala yenn document yu nga xamante ni day ñeel wàllum liggéey beeg yooyu il a fallu que ñu daal di koy nag woo ci yoon mu dem. ginnaaw si la d'accord ngir def nag passation de service bi waaye nag ni ki tay Euh, kilee di euh, ministre bi def na nag benn déclaration euh, ministre bi ñeel wàllu microfinance de l'économie sociale et solidaire ngir nag xam ne ni que jamono ji intention bokk na ci ñu daal di ko yóbbu nag ci yoon ndax dafa luubal ci lu tollook fanweeri million ci suñu ay koppar di million millions de francs CFA loolee comme ni ma ko waxee léegi est-ce que du dugg ci siège u reddition des comptes bi nga xamante ni Euh, Ousmane Sonko premier ministre daal dina koy annoncé ni ki biig ndax bu ñu fàttalikoo waxoon na ni ci biir semaine bi sax laata semaine bi di jeex dina ay nit yoo xamante ni euh, dinañu commencé di leen enquêter yoon war a euh, commencé def liggéeyam ginnaaw ay audit yoo xamante ni def nañ ko donc moom mi nga xamante ni moo di Alioune Diop di ministre des des investissements excusez-moi di ministre des microfinances Euh, de l'économie daa dinay xamle ni jamono ji moom mi leen ji euh, jéegi Jóob nag mi ngi ci guddi gu nga xamante ni bët euh, setagul ba tax na ñu ngi topp information bi di xool tey naka la wànnent di mu ki gëtëm jéegi Jóob ñuy fàttali ni mi ngi bokk ci Benno Bokk Yaakaar waaye plus précisément ci APR nekkoon jegeñaale Macky Sall lu bokkoon ci ñi daan génn di défendre bu baax a baax le président Macky Sall waaye di défendre yi tamit euh, troisième mandat ba tax na nag bi ñu bi ñu gañee Euh, Benno Bokk Yaakaar ba léegi di si gis nañ ko détresse bi nga xamante ni mën nañ koy liir ci ay kàddoom saay su àddoo ak euh, lu nu mel waaye nag euh, ñuy ndéganiku di xaar lu nar a tukkee tey ci lii nga xamante ni moo di information bi ministre de la microfinance de l'économie solidaire et sociale daal di joxe ji Alioune Diop ginnaaw ay kàddu yu nga xam